benn bu taxoon fii doon jël client client yi demoon nañ sax bay yéeg mais en un moment gis tu oto bi commencé euh, tàq ci la gaay arrière jékki-jékki affaire na commencé jëm kaw ci la def nii nag tàq na nii nag ba ñu ngi ko gisandoo moo nag ñu ngi nii nag bu fi ay nit ne woon tamit euh, li ma li ma mooy affaire dafay yeex ñoom ça plus de quinze minutes ou trente bi ñu ngi taxaw fi ñu ngi door a mën a fay lii waaw mais mais mais la nga war a mën a yaakaar que ni ah, moom moo daw a mën a tàkk ci tali. man damay jàpp ne ndogal la que de toute façon moom dawul dawul ci kenn kenn dawul ci moom dafa jékki-jékki taxaw rek comme ah, affaire bi commencé tax ci suuf ki ne ay arrière affaire bi daal di jëm ci kaw. dawul lu bari quoi non non dawul rek man daal ci SDE bi laa génnee ni wàcce benn client tourné gis muy saxaar ci diggante bi may wàcc di génne batterie bi affaire yi di maas tàkk. boobu ba léegi nag bëri na ay taximaan yu taxaw génn seen pompe injection fay nañ ba sonn mënuñ ci dara xam naa tamit lu war a am la ndax dafa maas maas la. est-ce que mën nañoo xam lan moo waral tàkk-tàkk bi. tàkk-tàkk bi maas la waaw dafa am maas. maas bi yàgg nga ko cee gis seetlu wala. non non non non maas bi moom bi mu maasee bi mu tàkkee sax benn la xam naa lu war a am la quoi fii liy tegaloo. mais heureusement yaboo woon kenn. si maa ngi yab ay clients. maa ngi yab ay client ñoom tamit jàpp nañ ci ba sonn mais affaire yi mu xaw a kii quoi. mais mais avant boobu client yi fekk ne ñoom ñu génn. waaw bi mu commencé saxaar lañu waa ci ñun ñëpp ma wekk batterie bi teg ko ne commencé xool solution waaw. est-ce que tamit nag ah, jàpp ne li nga doon daw bariwul n'est-ce li nga doon daw dafa bari wala bari. amul daw lu bari ci kii bi laa génnee nii mbedd bi xam nga mënoo di génnee ci mbedd di daw lu bari da ngay stoppé pour tourner mhm. dawul dara. lu war a am la rek. ñu gis ne ah, lii lii lii dal la tey boo doon wax tey jii ah, ma maam ci état bi tey la ba ban message ngeen di lancé. waaw xanaa ñaan yàlla rek am leneen. ñaan yàlla rek am leneen ndax lii tamit lu war a am la kenn mënu ci dara ooy. mais taxi bi la jox la. non taxi dama ci embauché nag moom ko. waaw ah, dama jox pour nga waaw dañ ma ci embauché. ñu lay jaajëfal kàddu yi rafet na macha allah. waaye jaajëf garab bi. fàttali ñu tur bi rek. man Gora Cissé